xam ñi nga xam ñoom ñoo théoriser un peu la théorie de la résistance face à l'oppression dañ doon wax ni dans le combat pour la justice la désobéissance civile est moralement acceptable loolu moom moo inspiré le fait ñu reprendre le droit à la résistance face à l'oppression oppression mi ngi tàmbali le fait que population bi bëgg a exercer seeni droits ngeen duñ ko fi exercer et que bu ñu fàtte ni la souveraineté nationale bi ñuy incarner à travers les assemblées. à travers le principe de la représentativité le pouvoir appartient au peuple c'est la conception démocratique du pouvoir donc peuple bi moom am pouvoir daf koy exercer soit directement wala mu exercer ko à travers ses représentants tey jii bu ñu demee maintenant ba cette crise de représentativité am peuple moom mooy jëlaat ses prérogatives d'exercer directement le pouvoir et que le, peuple n'a jamais tort peuple du musa am tort parce que le pouvoir lui appartient président de la République il est un mandant maanaam ku jox mandat mu exercer la cinq ans uniquement les députés ce sont uniquement des mandats des représentants du peuple mhm. donc tey jii nii bu fekkee député li nga xam moom moo moom moom la ñu warloo askan bi defuñu ko je pense que askan moom moo war a reprendre en main l'exercice de son pouvoir comment maintenant ñun on va jamais théoriser li nga xam ne moom mooy l'affaissement des lois de la république on de des républicains nañu exercer su li nga xam ne moom mooy le pouvoir à travers des procédure républicaines et légales et à travers des procédures républicaines et légales droit de marche c'est un droit qui a été consacré par la constitution mais tey jii da ngay gis ni même l'exercice de ce droit ça pose problème au bu fekkee ci période électorale lañ nekk candidat yi nga xam ne moom la conseil constitutionnel déclaré ñoom ñëpp am ñu droit dem defi campagne démb ñu tere leen ni leen kenn du fi campagne jàpp naa ni tey amuñu benn yaakaar que képp ku génn naan da manifester wala da ngay sa droit constitutionnel la dinañ la ci bàyyi hmm.